vingt jours quinze jours ñu ngi suñu kër yi tëdd toog bougé ñu fi la ñuy defee entraînement fi la ñuy defee lépp vraiment sénégalais yi dama bëgg ñu jël ko au sérieux parce que lii lu sérieux la du ay kaf lu sérieux la comme que ñu suñu dëkk nag développé wul nag euh, amuñu yenn moyens yi ñii rek lañ mën a def pour mën a vaincre virus bi waaw tubaab yi ñu ngi seen kër yi toog te ñooñu ëpp moyen foofu gars yi bàyyi leen xel ci loolu toog leen seen kër yi moo ëpp moo ëpp moo ëpp mucc daal maa ngi leen di bégg bi